bim dogalee yonentu alayhi salaatu wasalaam yonentu dog jublu penku fam dogee toog di ko ñaanal li ko daggee timis ba bëgg set yonentu ne ñaanalul kenn ku du Seydina Ousmane waaye bi fi fi fi ci beneen jaanib bi boroom xam-xam yi dara wérul ci ngëneelu Muawiya luñ la ci wax ay fen la bu la kenn nax ibnu hajar mu ne waqad warada fi fadaili muawiya ahadis kasira lakinaha laysa mu ne walakin laysa fiha ma yasixu min tariq al isnad amul benn sanad benn xadis bu am sanad bu wér yëpp ay sanad yu am ebola ñoo ci nekk te dinaa ci ñëw incha allah <clears throat> léegi mbokk yi bi mu la leeree ne kon al imaamu nasaa'i <clears throat> mawqit bi Baye Niass am tey moom la imaamu nasaa'i amoon kon ndekete Baye am na salaf nañ dellu ci keneen bu ñu yem ci imaamu Nasaayi kese wax naa leen ni incha allah ba bu may dugg ci biir suuf bépp wax ju ma lay wax du ma la indil benn téere bu du téere boo gëm ma gëm ko muy téere ahlu sunna bis bu ma la indilee téere bu du téere ahlu sunna dañal ci man nañ dellu ci ki ñuy wax al imaam al xaakim abi abdillah saaxibul mustadrak al saxiixayn Euh, mu ngi gaañu quatre cent cinq de l'hégire buñ demee ci téere bi tudd siiru alaamin nubala bu alxaafizu zahabi ci volume 17 ci page cent soixante quinze bu fekkee suñ tabaxu yi ñoo niroo bu fekkee wuute nañ aussi dellu rek ci tarjama imaamul xaakim boo ñëwee aussi ci tabaqaatu shafiiya al kubra bu al imam as subki ci ci page 163 bu fekke suñ tabax yi ñoo bokk bu fekkee utee nañ dellu rek ci tarjama al imaamul xaakim imaamul xaakim dañ koo ne euh, law annaka xaddasta bi fadaili muawiya xatta yakuffu anka parce que euh, àndandoori abdullah ibnul karaami karaami yeey dañoo tojoon min mbaram bi am nañu wax ne dañoo taal jàkkaan bi ba pare xisaar ko ci këram bañ du génn pour bañ mu génn Abu Abdurahmaan Sulami as-Suufi borom tabaqaat suufiya dugg ci moom daal di ko ne doo génn nga wax benn xadis rek ci ngëneelu Muawiya bi ndax ñi bàyyi la al imaamul xaakim mu ne leen laa yajiu min qalbi laa yajiu min qalbi wax dëgg yàlla sama xol li ma mokkal ci ay xadis aw ma benn ngëneelu aw bu ma ci xam kon buñ ne ray nañ ma rey waaye du ma fenal yonentu du ma kon bu ñu ñëwee tey di la théâtral naan la ne Muawiya am na ngëneel Muawiya am alxaakim nee na la amul benn ngëneel bu mu xam Nasaa'i nee na la amul benn ngëneel bu mu xam ibnu Isaaq ibnu Rahawayhi nee na la amul benn ngëneel bu mu xam ibnu Hajar al Asqalaani nee na la bépp xadis bu ñu riwaayee ci ngëneel wérut nga taxaw fii ba léegi Sayyidina Muawiya Sayyidina Muawiya lan Sayyidina Muawiya nga xam ne quarante ans yi nekk ami vingt ans yi nekk Amir ak vingt ans yi nekk buur jullit yëpp mu ngi taxaw ci kaw minbar bi di saaga Sayyidina Ali Seydina yi ni ngay wax ni tey moom moo posone Seydina Xasan mu dee euh, alors buñ yem ci imaamul xaakim ak imaamul nasaa'i kese ndax buñ yemee ci ñoom xëy na problème mën na am ñu ne la ñooñu ay shii yi lañu woon xam nga imaamul nasaa'i moom bu ñu waxee ne shii yi la bu yeboo mustadrak ala saxiixayn kii kon euh, sa sunanul yi bis ni ki tey buñ ko jëfandikooti te maa ngi yebal ku nekk na dem jàngi taarixu imaamul yi ak nu mu mu xool Eh, wax dëgg ci Muawiya moo ko rey imaamul hakim dem leen ngeen jàngi taarixam léegi nañ ñëw ci beneen imaam jalil xaafiz siqa sabt ci ahlu sunna wal jamaa bul ti somme chia lay indi ki ñuy tuddee al imaam abdurazaq ibnu hammam assanaani borom téere bi tudd musannaf abdurazaq ak musnad abdurazaq ak tafsir Abdourazaq al imaam Abdourazaq nii boo ko xamut sëriñu imaam Ahmad ibnu Hanbal la imaam Ahmad mi ñuy wax jabalu sunna Abdourazaq sëriñam la imaam Ahmad daf daan dem ci kanam Abdourazaq di lem ay tànkam bi jàng mu ngi gaañu deux cent onze de l'hégire nañ dellu ci siyaru alaami nubala gis ngeen ne taraaji bi siyaru alaami nubala laa yem parce que daanaka ci am naa ujullaaha la bokk ñoom gëm nañ ko mënoon naa indi ci yeneen téere yooyu ay konoon dafay kii waaye nañ yem ci foo xam ne addiinu ko min jay bi ka buñ demee ci siiru nu nubala bu alxaafizu zahabiyu ci volume neuf ci page cinq cent soixante dix bu fekkee suñ tabu yu ñoo bokk bu fekkee bokkuñu dellu rek ci tarjama abdurazaq ibnu hammam assanaani imaamu zahabi indi na ne abdurazaq dafa wax benn waay maanaam abdurazaq dafa toog benn jour ci palaasam fi ñuy jàngalee ci jumaa ji benn waaye daal di tudd Muawiya Abdurazaq ne ko laa tuqazzir majlisana bi zikri ibn abi Sufyan bul tilimal suñu majlis bi ci tudd Muawiya wax ji ñëw na aussi ci tarjama ci tarjama Abdurazaq ba léegi ci misanul i'tidal ci volume 2 ci page 610 ak yu ne noonu ak ci yeneen téere laa tuqazzir majlisana bi zikri ibn abi Sufyan bul salteel suñu bërëb bi ci tudd Muawiya maanaam Abdurazaq pour moom tudd Muawiya sax salte la turu Muawiya rek salte la xam nga yaakaar nga ne kooku dina toog naan ko Mawlaana Muawiya wala Sayyiduna Muawiya Abdurazaq ibnu Hammam as-San'aani boo ko xamul dellu ci tarajim nga gis mooy kat wala nga dellu ci musannaf Abdurazaq bokku na ci téere yi njëkk ci l'islam yoo xam ne buñ ko màbbee tey l'islam am manqué manqué musannaf Abdurazaq ibnu Hammam as-San'aani euh, <clears throat> nañ dellu ci beneen boroom xam-xam wala ci yeneen borom xam-xam yoo xamante ne aussi ba tey ci ay sëriñu buxaari ak muslim lañ ñoo xam ne buxaari ak muslim dañ daan dem ci seen kanam di lem seeni tànk di jël xadis te seen xadis yi mu ngi fees dellu ci biir buxaari ci biir muslim bul wax ne ay chia lañ de <coughs> am na benn borom xam-xam bu tudd Abu Ghassan an-Nahdi al-Kufi Abu Ghassan mi ci sëriñu buxaari yi la bokk. Euh, bokk na aussi ci sëriñu Abu Zur'a Razi ak Abu Hatim Razi ak seen tabaqa boobu maanaam kilifa la woon ku dem ba ñoom Abu Zur'a ñoom Abu Hatim ak ñoom Buxaari ñëpp di jàngee ci yow. nañ dellu ci siyaru alaami nubala bu alxaafizu zahabi ci volume 10 ci page 432 ci tarjama Abu Ghassan di nga gis Abu Ahmad alxaakim bokkut ak Abu Abdullahi alxaakim Abu Ahmad alxaakim mu ne xaddasana الحسين الغازي قال سألت البخاري عن أبي غسان حسين الغازي من الأدنى بخاري جمت أبو غسان بخاري من أم ماذا تسأل لو لا تتمم قلت التشيع مانام بق سيدنا علي جم بقون سيدنا علي بخاري نكو هو على مذهب أهل بلده أه مم ده مذهب أهل بلدهم موي واكوفة كم سين مذهب لنك موي بق سيدنا علي mu ne walaw raaytum moom Buxaari mooy wax de ci seewu alaamin nu balaa ci volume 10 ci page 432 walaw raaytum ubaydallah ibni moussa wa aba nuaym aba abu nuaym bi bokkut ak abu nuaym borom xilyatul awliya abu nuaym al fadl ibnu dukayn ci sëriñu Buxaari la bokk mu ne wa aba nuaym wa jamaat mashaayixina al kuufiyin lama saaltumuna an abi gassan mu ne nag bu ngeen gisoon abu nuaym al fadl ibnu dukayn ak ubaydullah ibnu Moussa ak suñ yeneen sëriñu waa Kuufa yi konoon doo laaj sax Abu Ghassan da nga xam ne Abu Ghassan ndekete kii bëggu sax Seydina daf koy bëgg bëggul imaamu Zahabi daal di taaliq ci wax ji ne qultu wa kaana abu nuaymin wa ubaydullah ibnu Moussa muazzimayni li abi bakar wa omar wa innama yanaalaani min muawiya wa zawi Zahabi moo bind li mu ne abu nuaym al fadl ibnu dukayn ak ubaydullah ibnu moussa dañ daan magal sayidna omar ak sayidna abubakar dañ leen daan jox seen ixtiraam waaye muawiya ak ñooñ muawiya ñoon lañ daan jam mooy li ma leen wax sànq que ne bañ muawiya wala jam muawiya ça n'a rien à voir ak laal Seydina Aboubacar ak laal Seydina Omar Seydina Aboubacar Seydina Omar képp kuy jullit bu dëggu da nga leen di bëgg da nga leen di màggal parce que yonentu daf leen a bëgg daf leen a màggal waaye Muawiya képp kuy jullit bu dëggu di nga ko suufeel parce que yonentu moo ko suufeel bu fa sa gëstu yeggee laa wax nag bu fa sa gëstu yeggul nag moom alimta shay'an wa gaabat anka ashya'u loolu moom laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha <laughs> alors mbokk yi gis ngeen de ay njëñ di boroom xam-xamu sunna laa leen di indil ngir yàlla ak yonent bi bu fekkee ñi ma leen tuddal nii am na ci kenn ku nekkul boroom xam-xami sunna na ngeen ma wax incha allah bu fekkee am na ci kenn ku am aqida bu bon aqida bu wuute aqida waa l'islam comme ni ko comme ni ko ñenn ñi di waxee aqida boobu waa l'islam xamuñ ko de aqida moomu noonu waa l'islam léegi bu fekkee ñi ma tudd nii imaamul nasai imaamul hakim ishaq ibnu rahawee abu ghassan eh, abu nuaym fadl ibnu dukaym Euh, Ubaydullah ibnu Moussa bu fekkee ñoom ñëpp ameewuñ pas-pasu lislaam nañ wax mu leer billahi wallahi tallahi bu ngeen bàyyi woon Muawiya tranquille mooy gën ci yéen parce que daama yéen a ngi xuus du ma dañ ci di leen mbëkkalanteeg seen i borom xam-xam yi ngeen gëm bis dana ñëw seen bopp yi dana explosé imaamul qurtubi moom waxaguma ko bàyyil ba ma ubbi téeréem ak tazkira fi ahwalil mawta wa umuril axira dinaa la ci génneel loo xam ne wallahi di benn ci ñaar soit nga saaga xurtu bi bañ ko soit nga topp xurtu bi xam ne ndekete Muawiya moo nekkutoon ci dëgg nañ leen dem tout yéen a ngi wax ñuy wax di ngeen xam ne billahi wallahi tallahi commencé gu ma sax commencé gu ma te ni may defar ñi nga xamante ne ñooy mutasawifa yi may yi may ñàkkee ñi nekk fii di dof doflu li may def ak yéen mooy gën a métti ji li may def ak wahabiya yi parce que wahabiya yi man comprendre naa ne ñoom seen aqida lañ doon défendre waaye yéen mu tasawuf yi da ngeen di ñëw bëgg a fontoo nit di laal dignité nit naa leen wan loo xamante ne billaay da ngeen xam ne commencé gu leen alif sama kanam seen abyaat shi'ri yooyu da ngeen ko lem dugal seen biir kilo ji nañ dellu ba léegi <clears throat> ci Ubaydullah ibnu Moussa al absi al kuufi ci sëriñu Buxaari la bokk ci ahlu sunna la bokk dellu ci tarjamaam nga xool mooy kan duma la wax kan la ahlu sunna la imaamu Buxaari daan dem ci moom di jàng xadis xadisam yaa ngi fees dellu ci téere Buxaari bi Ubaydullah ibnu Moussa imaamu Zahabi indi na ci Siyaru A'laami Nubala ci volume 9 ci page 556 jàpp 557 mu ne Ubaydullah ibnu Moussa daanu bàyyi kenn ku tudd Muawiya muy dugg këram maanaam boo tuddee Muawiya sax boo ñëwee moom du la jàngal sa tur nga tudd Muawiya rek du la jàngal. kon xam ngeen ne ndekete bàyyi bu toogee bi di wax naan yonentu wax na nangam ci maayo moom waxagul dara ubbi la guma leen ba léegi nag malafu yaxya alximaani borom musnad alximaani waaye nañ jàll dama leen di indil suñu tool yi ngeen gëm nañ dellu ci téere bi tudd ab durarul kaamina fi ayaani miati saamina bu alxaafiz ibnu xajar al asqalaani alxaafiz ibnu xajar al asqalaani ci volume 4 ci page 350 ibnu xajar al asqalaani indi fa tarjama ku ñuy tuddee al allaamatu saaduddin al taftazaani al xanafi bul wax ne chii la xanafi la maanaam ci madhabu abi xanifata noomaan la nekkoon ibnu xajar mu ne qaala saadu taftazaani fi charxi almaqasid moom moo bind téere bi tudd charxu almaqasid téere bu siiw la ci usulu diin mu ne ci charxu almaqasid boo fa demee ci volume cinq ci page trois cent dix mu ne yaani maa waqaa bayna alsahabati min almuharabat walmushaajarat ala wajhi almasturi wala ala alwajhi almasturi fi kut fi kutubi altawarix walmazkuri ala alsinati alsiqat yadullu bizahirihi ala anna baadahum <clears throat> qad xaada an nahji alxaq an tariqi alxaq wa balaga xadda alzulmi walfisq wa kaana albaacisa lahu alxiqdu walcinaadu walxasadu wallidaadu wa talabu almulki walriyaasa walmaylu ila allazaati walshahawaat is Sa'duddin Taftazani mooy wax Ibnu Hajar moo ko toxal man am naa Sharhul Maqasid waaye ubbiwu ma ko sax dama la kaa ubbil ci téere Ibnu Hajar al Asqalani pour boo leen teel la ñaar ñi Sa'duddin Taftazani ak Ibnu Hajar boo leen di sànni nga sànni leen mu ne is laysa kullu saxaabiyin maasuman wala kullu man laqiya annabiya bil xayri mawsuuman billahi wallahi tallahi ko ci gisul ñëwal nga wax ma ko ma tuub bu fekkee da nga may jëm ne damay ngàññi saxaaba yi boole waale ci saadu dini taftazani boole ci ibnu xajar al asqalaani mi toxal wax ci ngeen ñëw fii di fonto ni ñu naan sayyidina Muawiya kenn du ngàññi saxaaba yi loolu du waa lislaam kon ñii tamit duñu waa lislaam mu ngi nii ci seen téere yi te ñoom ci ñoom la ñuy jàngee aqida sharxul maqasid képp ku jàng aqida xam nga ko bu leen ñu fontoo lañ leen wax tëj leen seen làmmiñ yi bu ngeen xamul ngeen noppi te ngeen dem jàng ngeen bàyyi di fonto nit ñi yemal ci sa naxwoog sa luqa bi ngay jàng wala bi ngay jàngale nga bàyyi di dugg ci loo xamante ne tollagoo fa duñ nekk fii ray suñ bopp aay suñ bët yi nelaw ay guddee guddee jeexal téere yi la laqad xalaftu dahra shatrayni waqad jarada alay jamiu asnaan sifati ngeen ñëw di fonto nit ñi ak ay wax ju kii waaye baax na billahi di ngeen xam ne def ma woon wahabi yi dara ni may def ak yéen mooy gën a métti ni may def ak wahabi yi bu ngeen retee bombe nucléaire yi seen kaw laa koy taal pas ci kaw wahabi yi nekk suuf yi du tere ma taal sa bopp bi nga xam <clears throat> alors mbokk yi euh, pour ñu tënk parce que mu ngi commencé guddi nañ ko yemale fii incha allah bu subaa ñu mottali nañ ko topp benn par benn li ma leen bëgg a wax mooy daal képp ku leen wax ne cent vingt quatre mille saxaaba yooyu yëpp yëpp yëpp kulluhum udul kulluhum xiyaar dëgg ndax lan ci biir cent vingt quatre mille yooyu ci la Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul nekkoon moom la aaya wàcc ci moom yonentu wax ne moom mooy chef munaafiq yi wallazi tawalla kibrahu min moom la azab rahim ci Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul la wàcc ci biir cent vingt quatre mille yooyu ci la toomatu ibnu Ubay rek a wàccoon ci ci ci la toomatu ibnu a bokk moom la yàlla wàccee ci moom wala takun lil xaa'inina xasiman yàlla tuddee ko xaa'in wurujkat ci biir cent vingt quatre mille yooyu ci la walid ibnu uqbat ibnu abi muaytin bokk moom la yàlla wàccee ci moom in jaakum faasiqun bi nabain kenn ci ñun bëggul yàlla tuddee sa baay wala sa yaay faasiq walid ibnu uqba yàlla tuddee na ko faasiq kenn waru koo tarat bi ci moom boo demee ci ibnu abdul bari ci istiab fi maarifati al ashab ci volume 3 ci page 632 di nga gis ne ibnu abdul bari mu ngi wax ne euh, ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ نزلت في وليد بن عقبة بن أبي معيط te faasiq yàlla xam ne wax nañu seen delluwaay aman kaana mu'minan kaman kaana faasiqa ci biir cent vingt quatre mille yooyu ci la zul xuwaysira bokk moom mooy chefu xawaarij moom la yonent waxoon ne yaqra'uuna alqur'ana wala yujaawizu taraqihim yuqaatiluuna ahla al islam wa yad'uuna ubbaad al awsaan la in adraktuhum la aqtulannahum qatla aadin wa samuda zul xuwaysira ci biir cent vingt quatre mille yooyu la bokk képp ku ñëw naan la cent vingt quatre mille yëpp radiallahu anhu nekku da ngay fen parce que yàlla waxul loolu yàlla muhaajiruun ak lansaar la wax ak wallazina tabaouhum bi ihsaan ci biir cent vingt quatre mille yooyu ci ñoom la yonentu wax ne fii ashaabi isna achara munafiqan mu ngi ci saxiix muslim samaaniyatu minhum laa yadxuluuna aljannata xatta yalija aljamalu fi sammi alxiyaat kon képp ku la ne cent vingt quatre mille radiallahu anhu nekku da ngay fen yonent wax na lu uuteeg moom ginnaaw bu yonent waxee nag yàlla wax amul benn borom xam-xam bu mën a ñëw di wax leneen ñi di ko déglu soit nga dëppoog ñoom soit sa wax ci biti incha allah bu subaa dinaa ñëw ak yéen ci manaqibu muawiya yi ñuy wax ay allahuma jaalu hadiyan mahdiyan ay bindkat yonent la woon ay nangam la woon dinaa ci ñëw ak yéen benn benn ba def ci silsila bu fekkee da ngeen a jàpp ne nit ñi dañoo naan ndox wala naan café mu neex la ñi taxaw di jëm waawee ci seen bànneexu ba bakkat ba ngeen toll fa ngeen toll ñëw di fonto nit ñi wax juba bi dina leer wala bu fekkee ne dina leer kan mooy jàng ak kan moo dul jàng ngeen taxaw fi di indil ay woy ñun woyu xadis la ñuy indi aaya alxuraan la ñuy indi boo koy gëm nga gëm ko boo koy weddi nga weddi ko suñ yoon nekku ci yow buñ demee àllaaxira nga foo jëm nga xam wala foo xam nga jëm yàlla ak yonentam lañ xam bu ñu yàlla waxee alal ayni wa ras bu ñu yonent waxee alal ayni wa ras keneen ku wax nga dëppoog yàlla ak yonentam mooy tax ñu topp la boo wutee ñoom suñu yoon nekkul ci yow ida sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar fa maa waafaqa fa xuzu wa maa xaalafa fa truku tariqa tijaan bu uute woon ak alxuraan ak sunna ma ko def taxaw fi di fonton ni wax ji bëri aaya yëpp yàlla wàccee ko hadis yi yëpp yonent wax ko ngeen taxaw naan hadis yi wéru taarix dara wéru ci nangam ma ne la weddil julli weddil xajjatul wadaa weddil xare ba dara parce que moom tamit wérut ndax taarix la weddi ko ñu ngi jéggalu bu baax a baax bu fekkee tàng na wala kii na daa fekk ne rek léeg-léeg dafa am loo xamante ne boo ko déggee dafay naqadi sa xol te man maa ngi leen koy wax ngeen dégg ko kum neex mu neex la kum naqadi mu naqadi la maadaama maa ngi am xujja ci alxuraan ak ci xadis laa axaafu lawmata laa im ku may mere nga mere ma ci loolu ku may jàpp nga jàpp ma ci loolu ku may bëgg nga bëgg ma ci loolu ku may bañ nga bañ ma ci loolu alquran ak xadis bul ma indil waxu Baye Niass bul ma indil waxu Cheikhou Tidiane alxuraan ak xadis d'abord buñ jàllee nga doog a indi keneen waaye bu alxuraan ak xadis uuteeg waxu Baye Niass bul indi waxu Baye Niass parce que moom Baye Niass si boppam wan na ma ne bu alxuraan ak xadis uuteeg naa bàyyi waxam topp waxu yàlla bul ma indil waxu Cheikhou Tidiane naan ma Tidiane nga moo tax ma la koy indil bu alxuraan ak xadis uuteeg ñoom Cheikhou Tidiane nee na ma naa topp alxuraan ak xadis bàyyi waxam ci salaamaaleykum wa rahmatullah ba suba incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk ma jàll si ñu leen bu baax di leen ziar ah, ñu ziar baax Cheikh Baye ci silsila bi nga xam ne def na ko am na solo xam naa euh, comme waa groupe bi moom euh, nit ñi xam nañu as tuut te it maanaam euh, nit ñi am nañ seen xel daal waaw ah, léegi daal silsila bi nga xam ne Cheikh baay def na ko ku ci nekk daal yaay xool rek la nga xam te ne bi xam-xam wala sa xel may na la nga jàpp loola bu ko defee nga jàpp loola ñi ci des it nga bàyyi leen ne ñoom it seen gëm-gëm rek moom ñu ko jefee noonu yaakaar naa du am benn muskila man li ma bëggoon a leer rek mooy diggante banu umayyad ak lan moo dox seen diggante ba bañal googu maanaam am ba bañal googu am waaw ndax xam naa nit moom bu jekk-jekk rek maanaam bañ nit ne ci sa dara sababu ko waaw man daal sabab bi waral maanaam mbañeel googu dox ci diggante bi euh, dox mbañeel googu jóge ci banu umayya te dem ci euh, ci ci Seydina Ali radiyallahu anhu loolu moom bëggoon naa koo xam lan moo ko waral incha allah bu ci Cheikh Baye ba ñu indi ay leeral rek ñu koy xaar incha allah. Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Babacar na nga def mbaa yaa si jàmm lay ziar bu baax waaw question bu kii nga laajte de waaye daal <clears throat> li ma la mën a wax mooy boo delloo ci taarix boo delloo ci taarix. te comme ni ma ko waxee sànq képp ku bëgg a weddi taarix bu yeboo nga weddi ne yonent bi mës naa takk Sayyidatuna Xadija parce que loolu ñëwut ci alxuraan taarix la donc boo weddee yi rek di nga weddi yële euh, boo delloo ci taarix di nga gis ne boroom xam-xamu taarix yépp dëppoo nañ ci ne jouru xare Badar nga xam ne mooy xare bi jiitu ci lislaam amul kenn kenn kenn ci saxaaba yi ku sonal xeefeer yi ku mel ni Seydina yi am nañu wax ne boobu ñaar fukki ak benn la amoon lim rayu jour boobu ci ay njëndi xéeféer kenn rayut ko moom moo rayu otbatu papaay hind yaayu muawiya kon moom moo rey maamu muawiya moom moo rey benn magu muawiya muy otbatu ibn abi sufiyaan daal rey na ay njëndi xéeféer yu bëree bëree bëri ci mushrikuuna yi loolu taxoon na Seydina Ousmane radiallahu anhu jamono bi mu nekkee xalifa daf daan wax Seydina Ali ne ko bul jàpp ne ñun nuñ nekkee ci jàmm yow di ko mën a nekkee ci jàmm parce ba nu umayyate yi ñi ëpp ci seen mbokk yi yaa leen rey jouru xare Badar kër gu nekk tuur nga seen ronqañ kon loolu mënuñ la kaa baale te loolu dafay gën a fës ci xissawu Yazid ibnu Muawiya ci xissa Karbala xissa euh, Karbala bi bi ñu indee bopp Seydina Hussein ci kanamu Yazid Yazid bi mu koy wax lu mu wax ne laibat haashimu bil mulki fala xabarun jaa wala waxyun nazal euh, ci biir bayit yi mu ngi koy wax naan waadal naa may la badrin fa atadal maanaam dañoo fayu jour xare badar li ngeen ñu defoon xat xatal na al qawma min saadatihim waadal naa may la badrin fa atadal rey nañ sang xeet wi te kii nañ maanaam balance su xare badar bi égaliser nañ un à un kon da gis ne affaire bi affaire u xeqatu la woon ak xasad ak inaat comme ni ko Taftazani waxee ci charxu maqasid te may indiwoon ko sànq euh, lii suñ problème nag ñun mooy wax dëgg yàlla suñu société yi dañoo am benn culture boo xamante ne il faut ñuy surmonter ko ndax suñuy bàyyi ak suñuy maam ñoom tamit dañ koo jéemoon na surmonter mooy culture inna wajadna abaana ala ummatin gis nga Baye Niass radiallahu anhu bàppaam bàppaam maam alaaji daf daan sadlu dafa sadloo sadlu sadlu ba génn àdduna mësta xabdu mais Baye Niass bi mu ñëwee bu fekkoon inna wajadna abaana ala ummatin lay dem konoon du mësa xabdu mais bi ko ay gëstoom yóbbee ci wàllu xabdu dafa xabdu bàyyi manhaju papaam ci côté boobu noonu donc euh, inna wajadna aba ana boobu ak diw wax na nangam rek dafa pose problème ci xelu nit moo tax toujours ñuy wax ne unzur li zaatil qawli laa lil qaa'ili xoolal jëmm wax ji bul xool kiy wax parce que xool mi kiy wax mën na laa tromper loolu tax na ñu bëri gëmuñu woon yonentu bi ba xattaa ci biir alxuraan da gis ne yonentu yàlla yu bëri li tax seen xeet yi seen xeet daan leen xeet mooy xool biñ daan xool jëmm yonent yooyu maa naraaka illa basharan misluna wa maa tabaaka illa alladina hum araziluna maanaam du ñu xool risaala ak message bi yonent boobu di transmettre waaye dañuy xool jëmmi yonent boobu hay yow barki démb nga nekkoon fii di foo suñu biir tey nga ñëw naan yàlla yeloo yónni hay yow kanaa néew ne yaay ki ñu xamoon fii nangam yow kanaa du ne yaay nangam yonentu donc bul xool jëmmi kii wax soit ci jaanib jaanib silbi wala jaanib ijaab yi mën na laa tromper mën na la tromper parce que ñëpp ay juum ñëpp ñëpp dañuy juum yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen yonentu yi ñoom lañ gëm ne du ñuy juum ay maasum lañ su ci aqida al ashari ñun loolu lañ gëm di léegi euh, am na yeneen aqaayid yoo xam ne surtout mu'tazila yi ak ñeneen dañoo gëm ne yeneen yonentu yi am na yeneen juumte yoo xam ne mën nañ koo def waaye ainsi de suite du suñ du donc xool daal jëmmi wax ji waa ji wax moom moo am njëriñ euh, léegi bu ñu ñëwee ci loolu danga gis ne aqida wal imsaaku amma shajara baynahum aqida wal imsaaku amma shajara baynahum li ko daggee ci qarnul awwal ba ci qarnu saalis wala rabia ba ci qarnu rabia hijri amul kenn ku ko mës a wax ibnu abi zeydin al yi amul kenn ku ko jiitu ci wax jooju noonu wala imsaaku amma shajara baynahum borom risaala amul kenn ku ko jiitu ci wax jooju te ba léegi nii ñi nga xam ne dañuy wax wal imsaaku wal imsaaku boo leen laajee kan moo njëkk wax aqida boobu xamuñu ko xamuñu ko mais pourtant boo delloo ci al bidaayatu wan nihaayatu bu al xaafiz ibnu kasir di nga gis ne ibnu kasir indi na mu ne ibnu kasir laa wax de as-salafi taalibi ibnu taymiya dafa wax ne alxasanul basri nga xam ne sufiyanke la woon taalibi saydna ali la woon alxasanul basri daf daan wax ne kaana yanqimu alxasanul basri dañoo wax ne kaana yanqimu ala muawiya arbaata ashyaa maanaam dafa jéppee woon muawiya ñeenti yëf première bi mooy istilxaq ziyaad maanaam jël doomi njaaloo askan ko baayam te yonentu alayhi salaatu wasalaam wax ci xadis ne lil firaashi wa lil aahiril hajar muawiya damm qaayida boobu te loolu maalumu min addiini bi darura la ndax yàlla moo wax ne uduuhum li abaihim huwa aqsatu inda allah fa in lam taalamu abaahum fa ixwaanukum tawliyatu yazid jël gim jël yazid teg ko ci kaw bopp yi te ñu ko te ñu ko gënoon fuuf nekk ci xeet wi xeet woo xam ne Seydina Xuseyn mu ngi fi xeet woo xam ne Abdullah ibnu Omar mu ngi fi xeet woo xam ne Ibnu Zubayr mu ngi fi xeet woo xam ne Ibnu Abi Bakar mu ngi fi xeet woo xam ne saxaaba yi ñoom Abu Saïd al-Xudri ñu ngi fi ñoom Anas ibnu Malik ñu ngi fi ngay jël Yazid di ko teg ci kaw xeet wi Alxasanul Basri nee na loolu mënu ko woon a jéggal Muawiya mu ngi ci albidaaya wa nihaaya bu Ibnu Kasir ñetteel bi mooy qitaaluhu aliyan xeex gi mu xeex ak Seydina Ali ñeenteel bi mooy qatluhu hujran rey jim rey hujr ibnu adi al kindi xam ne saxaaba la woon muawiya rey ko tout simplement parce que daf koo wax ne boo saaga sayidna ali laam ko ma baal la xujur ne ko ma dee moo gën ma saaga sayidna ali muawiya raylu ko mu ngi ci albidaaya donc xam nga ku mel ni xasan bu basri bu demee bay wax loolu kon moom gëmutoon ay waxi wal imsaaku amma shajara baynahum gëmut ko woon euh. ñaareel bi xasanul basri mën ngaa wax ne taabii la woon mais nañ dem ci saxaaba yi ku mel ne sayidna ammar ibnu yasir radiallahu anhu boo delloo ci tabaraani ak ci majmau zawaid ak ci yeneen téere di nga gis xutbaam jun xutba xutbaam gi mu doon xutba jouru xare siffiin daf daan wax ne wallahi ma aslamu walakin istaslamu wa asarul kufra xatta wajadu ala alxaqi awaanan azharuhu mu ne ñii jàkkaarloo yéen di xeex ak yéen mësuñoo gëm dañoo ñëwoon def istislaam rek parce que seen doole moo jeexoon tey nag biñ demee ba gis ne am nañ doole ñu daal di feeñal seen kufru googu noonu mooy dëggal li yàlla waxoon laqad xaqal qawlu ala aksarihim fahum laa yuminun loolu taxoon na mboolem saxaaba yi nekkoon xare badar ak xare uhud te ñi fekkee woon ñu dundoon ba jamono waaxi ak siffiin amul kenn ku dugg ci jaysh Muawiya bi ñoom ñëpp ci jaysh Seydina Ali lañ nekk boroom xam-xam yi konte nañ lu mot soixante dix saxaaba yu fekkee woon ba Badar ñoo xamante ne ci jaysh Seydina Ali lañ nekkoon taabii yi moom bul wax bokk na ci rek waysul qaran yi nga xam ne yonent bi nee moom mooy sayyidu taabiin ci jaysh Seydina Ali boobu lañ ko rayee ñoom abu ñoom abu ayub al ansaari nga xam ne ay badri lañ ñoom xuzaymatu bnu saabit bi shahadatayni nga xam ne badri la ñoom ammar ibnu yasir badri la bilalul habashi badri la ñoom ñooñu ñëpp ci jëy saydna ali boobu lañ nekkoon ammar ibnu yasir ci lañ ko rey ñoom saxaaba yooyu gëmuñu woon wala imsaaku amma shajara baynahum parce que ñu ngi ko doon nettali ñu ko doon waxtaanee ñu ko doon jàngale léegi bu fekkoon aqida wal imsaaku boobu dëgg la kon lu tax boroom xam-xam yi bind ko seen téere yi lu tax effacé wuñ ko lakk téere yi ñu fàtte loolu mooy li ma laaj sànq ci sama muqaddima kene ndax dafa am benn xam-xam bu dagan ñi bind ko xaraam ñi jàng ko wala dagan ñi bind ko dagan ñi jàng ko ba pare xaraam ñi wax ko ah, bu fekkee am na nañ ñu wax. kan moo ko xaraamal parce que luñ bind luñ bind dañ koo bind pour nga jàng ko loo jàng da nga kaa jàng pour wax ko bu ko wax jot bu ko laajee kon mbañeel googu nga xam ne banu umayya amoon nañ ko ci Seydina Ali moo tax jour bu ñëwee ba nekk xalifa nag ñu daal di fësal seen mbañeel gi parce que comme ni ma la ko waxee moo rey seen maam yëpp ngir ekkati diine l'islam ñoom loolu mënuñ ko ko woon a jéggal te bim fi jugee aussi ñi daal di jaar ci doomam yeeg sëtam yi ñoom ñëpp ñu rendi leen demal nga jàng taarix am na benn téere bu tudd maqaatilu taalibiyin bu abul farajil assahaani nga gis ni ñu rayee doom yonent yi sëti yonent yi ñoom Muhammad Nasu Zakiya dañ koo wékk juróom-ñeenti fan ci buntu Medina yaramu neen ziggi dër lañ ko def. xool yaanan juróom-ñeenti fan Euh, lëng la ñuy wax xaw ma jarugoñ jarugoñ moo ñëw muural ko ay awraam comme nim doxee diggante maamam ak xéeféeru màkka yi ci bi yonent di gàddaay noonu la ñëwaatee tey dox seen diggante ñu wékk ko juróom-ñeenti fan yaram bi yàquwut jarugoñ moo ñëw muural ko ay awraam mu ngi ci maqaatil maqaatil taalibiin bu abul faraj al asbahaani demal nga xool ñu Muhammad euh, ñu ñoom ki euh, Abdullahi al Kaamil niñ leen def yow Tidiane bi wax ne Tidiane nga laa laajal sa bopp sam sa sëriñ Cheikhu lan moo indi ay maamam Algérie laajal sa bopp loolu lu tax ñu ñëw Algérie asalaamaaleykum euh, wa rahmatulah mbokk yi maa ngi jéggalu ci audio bi ma wax nii dafa mel ni bi may lim badri yi nga xamante ne fekkee nañ euh, Sufyaan ak Seydina Ali dama cee boole Seydina Bilal al-Habashi sabqu lisaan la njuumte la Seydina Bilal mu ngi gaañu vingt ans de l'Hégire ci jamono xilaafa Seydina Omar radiallahu anhu donc njuumte la euh, Bilal al-Habashi dundutoon ba waaqia boobu waaye daal badri yi ñi nga xamante ne dundoon nañ ba waaqia boobu ñoom ñu fekkee woon nañ ko ak Seydina Ali te ñu bëri ci ñoom foofu lañ leen rayee incha allah xam naa bis bu ñu amee jot dinañ sartu seen tur ñoom ñëpp incha allah maa ngi jégalu bu baax jumte la. Euh, alors léegi nag problème yooyu noonu boo ko xamee ngay jéem a xam waayu siyaas yi ak waayu taarix yi bi nga xamante ne am na ci problème mu xadis yi par exemple jamono bi ñuy bind xadis ki nga xamante ne moo nekkoon amir ci jamono jooju doole yëpp la amee woon comme ni amérique men tey ci àdduna nu ko raw lay kooku daan men parce que doole yépp ci loxoom la nekk nguur goo xamante ni monarchie la amee say jund amee sa alal amee sa lépp yàgg naa leen a nettali ibnu sikkit an naxawi ci jamono mutawakkil al abbas yi mutawakkil daf ko laaj ne ko sama ñaari doom yi ak xasan ak xuseyn doomi fatima ali kan moo gën ibnu sikkit ne ko wax dëgg yàlla amirul amirul muminin yow sa ñaari doom yi buñ leen doon jox insaaf waruñ leen a tëkkale sax ak mbayàllaam xasan ak xuseynu ibnu sikkit daal di wax ne nañ ko daggal eh, kii mutawakkilu daal di wax ne nañ ko daggal làmmiñu ibnu sikkit bi indil ko ko léegi bu bàyyi ñes waxee lii tey ci 2017 yow balaa nga koy weddi ngir yàlla demal ci téere taarix yi wala nga dem ci téere taraajim yi nga jàng tarjama ibnu sikkit nga xool ndax bi muy dugg ci bàmmeelam yóbbaale na fa làmmiñam wala déet point à la aussi simple que bonjour ku ñëw nag di la wax ne yonentu bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne képp ku ma laanu yàlla na ko yàlla def mu nekk teranga danga koy wax ne ko ngir yàlla ñaanal yàlla yonentu laanu say waajur kese ñaareel bi bu fekkee loolu la kon ñiy texe ci xeet wi bari nañ de parce que li ñu yonentu nettali ne ku ko def yàlla rëbb la ku ko def yonentu rëbb la par exemple yonentu nettali na ci xadis ne bépp jigéen boo xamante ne jëkkëram sàkku na ko ci guddi mu bañ yónnentu eh, malaayika yi dañuy fanaan di ko rëbb ba bër set ci beneen riwaaya rëbb bëgg yàlla ak ab yónnentam dafay dal ci kawam kon jigéen googu mooy yow boo bëggee am teranga àdduna ak àllaaxira rek saa yu saa yu gudd jotee bu la si jëkkër woowee bañal parce que da ngay am rëbb yàlla ak ab yónnentam te rëbb yàlla ak ab yónnentam teranga lay doon. lii ban genre waayu la lii ban genre ban genre théâtre la ban genre laabu bi diin la ban foo la ci diine ji. te temps xadis yooyu noonu yépp boo ko xoolee billahi alladi la ilaha gayruhu dellul ci sanad yi nga xool duma la wax dakk dellul ci sanad rek nga xool dellul ci sanad yi rek nga xool yonentu bi alayhi salaatu wasalaam daal yàlla baax na yàlla baax na alors léegi bu fekkee ne comme ni ma ko indee sànq ci silsila bi que ne ibnu hajar al asqalaani indi na ci tahzibu tahzib que ne banu umayyata dañ daan topp ku tudd Seydina Ali sax ñi rendi la turub Seydina Ali rek boo ko amee turu Ali yu rek dañ lay rey sàkkantuma nag koo xam ne deretu Ali boobu nga fu ñu lay bàyyee kon loolu moo taxoon ñoom maami maami ñoom Cheikhu Tidiane yi ak maami ñoom Sidi Abdul Qadir Jeylaani yi ñii daw dem Iraq ñii daw dem Iran ñii ñëw ñii daw ñëw Afrique loolu moo tax shérif yi tasaaroo ci àdduna bi mais ci cosaan shérif seen maqaru Makka Medina la woon mais dañ leen a parce que dañ leen daan jàpp leen rey di leen toroxal so ñi nga xamante ne nag wax dëgg yàlla dañ naan sëriñ diw wax na radiyallahu anhu ci diw sëriñ diw wax na radiyallahu anhu li ñu leen di wax mooy bul topp sëriñ diw waaye lépp luñ la wax boo ci naree am sikk sàkk utile téere bi nga ubbi xool gis nga man jamono bi may commencé di jàng affaire waqaaya taarixiya yeeg yu mel noonu ci ay téere tabar yi laa commencé ak ñoom Euh, nu mu tëjee euh, muruju zahab bu Mas'ud yi ak ñoom euh, Ibnul Imaad ci chazaratu zahab ak yu mel noonu waaye li ma daan def mooy bu ma gisee benn wax bu ma jaaxal damay xool muhaqqiq bi bu joxee marja damay dellu ci téere bam ma jox daan naa toog léeg-léeg wallahi lu ma soixante mu jëllat dañ may tiim yoo xam ne benn bokk ci lépp bu ma gisee li dara dem ubbi bale ubbi bii ubbi bale ubbi bu ma liiree sa téere nga ne ma Buxaari riwaaye na balaa may jàll satara boobu dama ci rëdd crayon teg ci sama loxo dem xooli Buxaari ci numéro bi nga ma jox ba xam mu ko war a nekk fa doo ko continuer bu ma ko fa gisut damay commencer am aperçu que ne déjà yow sa sa wax xëy na munuñ kaa jëlaa à cent pour cent parce que doo amin ak ci naqlu bu ma ko fa gisee ma doog a continuer waat noonu laa daan doxalee donc noonu lay taalib di doxee boo gisee benn wax bu la bàyyi ñes wax walla sëñ diw wax la sa waay muñal nga dem uti téere ba mu la jox nga ubbi ko nga xool defal loolu rek bul wax ne sëriñ diw dangam wax na leneen lu uuteeg lii déedéet demal ci téere ba mu la jox nga xool bu ma ne la Buxaari riwaaye na ne diw nàngam ngir yàlla muñal nga dem ubbi Buxaari nga xool léegi boo ñëwee nag bul laaj sa bopp lu tax sëriñ diw waxutoon ah, xëy na sëriñ diw gisutoon Buxaari boobu de parce que alimta shay'an wa ghabat anka ashyaaw loolu doomi aadama yëpp la ku dul yàlla ak yonentam alimta shay'an wa ghabat anka ashyaaw Seydina Omar ibn Khattab ci boppam daf daan def léeg-léeg ay atte saxaaba yi di ko gàgganti ko nangam la doxee woon Seydina Omar deltu ci ginnaaw ñépp jàng nañ xistaam ci euh, irsul kalaala ci miiraasu maam jigéen ak euh, miraasu bi nu mu tëddee ala itaal ay qadaaya yu bëri yoo xamante ne daf koy àtte ñu ne ko déedéet mu dellu ci ginnaaw kon alimta shay'an wa ghabat anka ashya'u boobu noonu dafa am. Euh, pour conclure pour conclure sëñ Babacar li ma la mën a wax daal mooy yow ak képp ku mel ni yow ak képp ku may déglu li ma leen di ñaan mooy na ngeen góorgóorlu ngeen jàng te bu ngeen di jàng téere boo gis jàngal téere chia téere sunna téere mu'tazili téere juif téere nasaraan téere xéeféer téere bouddhiste téere jullit loo gis jàngal jàngal rek yow jàngal jàngal jàngal bul xeeb dara jàngal dina am nag ay tanaqub léeg-léeg ngay gis ñu ekkatil la dara fii daaneel ko fële mais noonu lay xam-xam bi di duggee ci yow tanaqud baada tanaqud shubha baada shubha shubha baada shubha ba maarifa bi daal di toog ci sa kaw ci sa xel góorgóorlu nga jàng te bul taqlid ama ci kenn bul xool ne imaam diw moo wax nangam kon wax jooju jéggi na siraat déedéet parce que leeru la ndax imaam diw moom moom ci boppam jéggi na siraat wala déet xoolal wax jam wax nga teg ko ci misaan léegi xaaral ma may leen benn affaire tey tuuti ci mois Muawiyatu ba léegi wala ñaar premier bi bokk na ci coppite yi nga xamante ne mois Muawiyatu indi na ko ci diine ji xam nga yonent bi alayhi salaatu bi albani wéral na ko albani yonent bi dafa wax ne awwalu man yuxayiru sunnati rajulun min bani umayya ci njëkk a changé sama sunna def bidaa ci banu umayya te la bokk boo demee ci téere bi tudd mawaahibul jalil sharxu muxtasar xalil mawaahibul jalil kon yéen ay comme ñun ay maliki lañ nañ jël mawaahibul jalil kese boo demee ci mawaahibul jalil di nga gis ci page 431 ci volume 1 al imaamul xattaab dafa indi ne ci jamono muawiyat ibnu abi sufyaan buñ daan noddu pour julli buñ ñëwee ba xayaal al salaa xayaal al falaa dañ ciy yokk assalaamu alayka ayyuhal amir ci jour àjjuma dañ ciy yokk assalaamu alayka ayyuhal amir xaanati salaatu ci biir nodd bi billahi wallahi tallahi mu ngi ci mawaahibul jël dellul tey balaa ngay nelaw nga xool ko ci jamono muawiya lañ daan def loolu xulafaa u rachiduna yëpp ñëw nañ ba jàll kenn defu ko ci ñoom Muawiya moo ko fi indi hayya ala salaa hayya ala falaa assalaamu alayka ayyuha al amir doy na waar waaye nañ jàng nañ jàng nañ góorgóorlu ñu jàng ñaareel bi ma lay joxaat mooy boo demee ci téere bi tudd musannaf abdurazaq assanaani boo demee ci euh, la ilaha illallah ci volume ci volume cinq ci page deux cent soixante dix mille six cent deux neuf mille mu ne an ibnu Uyayna maanaa jëlee na ci Sufyaan ibnu mu jëlee ci Abu Zubayr Abu Zubayr mu ne sami'tu Jaabir ibn Abdillah al Ansaari xadis bi qawi jiddan mu ne Jaabir ibnu Abdillah al Ansaari radiyallahu anhu wax lamma araada muawiyatu an yujri alkizaama qaala man kaana lahu qatilun falyati qatilahu yaani qatla uhudin muawiya ci cinquante et un de l'hégire dafa toog toog ba mu neex ko mu ne daal xaaral ma sikkuloo jullit yi ci seen diine mu ne léegi dafa bëgg defar benn euh, kizaam par exemple comme genre dex wala ndox bu muy xat mu dugg ci biir Medina canalisation man xaw ma naka lañ ko mën a defee daal waaye daal ci mooy comme genre gex bu mu mën a xàcce pour mu dugg ci biir Medina léegi moom xool na xool moom mu Muawiya amul fenn fu mu mën a jaarale loolu lu dul fa ñu suul ca Baqiya ba ñu suul xatlaa Uhud fa ñu suul ña nga xamante ne yi doon ci xare Uhud déglu leen ma bu baax a baax joxe naa référence dellu ci référence boo ko gisul nga ñëw kalaamee ma mu ne képp koo xamante ne rayoon nañ fi sa mbokk ci jour Uhud te fii lañ ko suul ñëwal nga jël ay yaxam parce que damay sulli bàmmeel yi mu ne moom jaabir ibnu abdillahi al ansaari mu daal di wax ne fa axrajahum ribaatan na mu ne biñ commencé di gas pour sulli néew yi ñu commencé di génnee seen jëmm yi ñoom ñëpp kenn ci ñoom sax sa yaram bi kii wawagu ci sàkkantuma sax di la lekk seen yaram yaa ngi lemu sax maanaam dara jotu leen mu ne fa asaabatil misxaatu rijla rajulin minhum fan fatarat daman mu ne ci kii yiñ doon gasee eh, pikk yiñ doon gasee daal di laal tànk kenn ci néew yooyu noonu deret ji daal di génn maanaam ba xatta seen deret yi nekk seen biir yaram yi ñoom shuhadaa uhud yooyu seen deret yi wawut mooy li yàlla wax ne wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillah amwaatan bal axyaun inda rabbihim yarzuqun sayidna abu said alxudri radiallahu anhu daal di wax ne laa yunkaru baada haada munkarun abadan amul dara lu ñaaw lu ñuy ñaawlooti ginnaaw jëf ju bon ji dellul ci musannaf abdurazaq ci volume cinq ci page deux cent soixante-dix-sept ci xadis numéro neuf mille six cent deux biñ defee loolu Muawiya mu ne nañ ko bàyyi nañ ko delloo nañ leen delloo lillahi wa li rasuli yow jullit bi jëfandikoo sa xel bu fekkoon ne dëgg la ci moom dafa bëgg a jaarale foofu dex konoon même buñ fa fekkee seen jëmm yi danañ leen changer place dex bi danañ ko fa jaarale waaye pourquoi bañ fa fekkee seen jëmm yi mu ne nañ leen delloo parce que moom ci tasawuraatam dafa amoon yaqiin ne li tu waxoon ne suuf bi leen lekk ay caaxaan la ay léeboon lu pen la buñ gasee ay yax lañ fay fekk léegi mu bëggoon ñëpp ñëw fekkee loolu comme yonentu wax na ne xatlaa din ak xatlaa badar yax du euh, suuf du leen lekk buñ gasee fekk fa ay yax boobaa jullit yu bari dinañ sikk ci seeni xol ci lislaam waaye alhamdulilahi rabbil alamin bañ gasee ñi fekk fa seen jëmm yi mu ne nañ ko delloo léegi bu fekkoon yàlla bëgg naa nattu xeet bi konoon dafay yu ebal malaayka yi ñu jëlee fa seen jëmm yi buñ gasee duñ fa fekk dara kon dañ naan kon li yonentu waxoon ne shahid yi suuf du leen lekk ana kon xëy na ba tey ji konoon yow ak man bu ñuy sujjoot par force la ñuy sujjoot waaye alhamdulilah lii benn la ci wax naa leen ne sufiyanke yi yëngatu ci masala bii danañ gis lorow li waxaabi yi di gis nañ nekk di ma fontoo